bisimilah barke borom Touba kon ñu ngi fii ci Daaru Salaam Kayel sëñ Jibril Touré lañ taxawal nii jëmmi jàkk ji suñ ginnaaw am na taarix xam naa lañ koy jox rek micro bi bu ko defee mu leeralal ñu lan mooy taarixu barab bu tedd bi nga xam ne ci lañ taxaw sëñ Jibril ñu ngi lay nuy di la seere wat waaw fii ma taxaw nag Kandisar la tudd pëlub sëñ Basiru moo fi ne woon ku wax maam Kumba Déwél moo doonoon pëlub sëñ Basiru dégg naa bi mu fi ñëwee ba toll fi tasanteeg timis si jot fi la jullee timis doo ko jàll waaw fii nag moom ab neen moom pël bi moom pël bi sëñ Basiru fii nag suufa suufu pël bi la ah te pël bi moom daa moom rek lañ daa dàkkanteel pël bi sëñ Basiru waaw ba nëgë ni ba mu demee Tuubaa loolu lañ doon wax waaw. Hmm, moom góor la woon la jigéen. jigéen la jigéen la. Hmm. waaw jigéen la moom. del si ci tur bi ak sant pël bi. maam Kumba Déwél. waaw mujj yàgg ñu ne ko wax maam Kumba Kumba Kumba Dar Salaam. Hmm. Kumba Dar Salaam. Dar Salaam Kayal waaw. pël moom bu bëggoon sëñ Basiru la nag mhm. waaw waa këram nag ñoo dis fii moom mhm. ah, am na euh, sëtam bu yoroon fas yi sëñ Moustapha mhm. moo ko yoroon foofu ci Touba ca koñ ba fas yëpp moo ko yor ba këram mu Moustapha wàcce ab liggéey keroog lañ koy doog a wàcce mu dem këru baaxum waaye foofu la newoon waaw ab sëtam woon ñuy wax euh, Abdou Jigéel waaw. ok mm, mm. sëñ Jibril sëñ Basiru lañ moom pël yi ñu ko fonkoon lañ nag moom. bëgg sëñ Basiru lu sëñ Basiru bëgg ñu ne ci suba ngoon waaw ke xaale bi fi desoon itam de de sëtu maam Kumba moom it da ko daa fekk di yor ay ganaar ma di ko gis mu di ko fekk euh, njaareem ba mu jàgg goneem yëpp ci kër gi la nekk euh, goneem yi euh, Abdou Jigal gone yëpp ci kër gi lañ nekk ci lañ jàngee ab liggéey ba keroog mu leen maye kër Berlin waaw. a yoroon fas yi moom fas yi si suñu sàbësir yi moom moo yoroon moom waaw. ci koñ bi waaw. tabarkalla jërëjëf sëñ Jibril. bisimilah barke borom Tuubaa kon mbokki internet yi ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a ñu ngi fii ci Daaru Salaam Kayel ba tey ci topp tànki bi ak xidma 28. waaw Altine Ndiaye mi ngi nii kon dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee moom it ñu doog sóoboo moom ci ci ci waxtaan wi soxna Altine ñu ngi leen nuyu di la siyaare. waaw waaw maa ngi leen nuyu bi mu ñëwee sëñ Moustapha sëñ Moustapha bi mu ñëwee fii. boobu yoon wi fii lay jaar mu ñëw gone ñëw mu ne maam Kumba sëñ bi nee nga ñëw mu dow ñu toppa ci ñun gone ñu toppa ci mu ne ko ah man kat dama laa géej a gis wi waa ko ay Mbàkke dama laa géej fii ci dëkk bi danga jaar fii rek mu ne ko waaw mu ne baax baax la sant Kumba Daaru Salaam mu ne ko waaw mu ne ko dama fi jaar mu wàcce piliyaan bi toog gindi peñu suukar ak café jox saamaam ma wuuf dégg nga. Mhm. ko defee mu ne ko dama doon siyaare mu ne nii mbax na mi maam Kumba mu am ci sëñ Basiru kenn am ko mu jox ko mhm. mu ko dama doon siyaare rek di la ñaan boo ko wakee sëñ Moustapha mhm. eh, sëñ Takka dena kam waaw mu mag waaw mu mag waaw sëñ mu mag moom moom sëñ Basiru ñooñu lañu kam maa ngi leen nag di leen siyaare soxna Altine jàkk jàkk jee moom loo ci fàttaliku moom lu la ci sa maam mosoon a. mu ko def see kii moo ko def Seck Dia Seck Dia moo fi def jàkka bi dama taw fii ba mu indi woto ak ciment am ak lépp mu ne dama bëgg nga woon ma foo Kumba Daaru Salaam toogoon ak se ak sëñ Basiru ma ne ko ñëwal ñu dem ji bi nii wóor na ko dongo ñëwratu dongo waa Daaru Salaam ñëwratu ko ba mu set mu ne ko fii la amoon na sump sax sump bi daa daanu amoon na guerre guerre gi kam nga ruuj kat yi ñu kor ko waaye sa foofu la doon yéen doo bale mm. bu buggee julli sax dem fa julli ba mu ko ñaan mm-hmm. ma ne ko ñëwal ñu dem ma ñëw won ko ma ne ko fii fiila mm-hmm. fii la tegoon piliyaanam mm-hmm. sa toog nii ñun gone ñu toog wër ko dégg mu siyaare ko ba pare dindi peñ suukar ak kilo café jox ko ne ko siyaare naa mu ko demay dem tiib mu ne ko jërëjëf Mbàkke mu daal di dugg ñu dem ñu del si fii sa maam Kumba mm. fii la cosaan mm. mu ne mm. moo ma wax ci làmmiñam fàttaliwu ma ko mm-hmm. boobu soxna soxna abilow dafe ñëw ba ci déwén sama ñëw fii sa maam moo ko wax mu ma mu ne bi kër gi suñ kër gi dafa lakkoon lakk ba jeg takk waaye bi ñu toog fii bi lakk bi fay fekke sëñ Basiru eh, sëñ Moustapha yónnee na ay gone ay ay samp kër gépp ay néeg. Mhm. poustaar. dëgg soxna Altine yow euh, mbaxana yi sëñ Basiru daan jox sa soxna Kumba. Mm. ak barkeelu yooyu am na lu ngeen ci denc ba léegi. denc yu dañoo jël benn bi dañoo jël mbaax naay mbaax naal kooku bi mu nelawee. Mm. ah moom lañ mbaxanaal sa maam moom. waaw waaw waaw moom lañ ko solo. seer seer seer bi. Mm. moom lañ ko jox nii. kon kay sa maam barkeelu yooyu moom da ko yóbbaale àjjana rek. ah yóbbaale na ko de. waaye kam nga pël dafa dof hmm. bu pël doful woon hmm. ñu dindi ci benn ñu di ñu di siyaare waaye kam nga pël bokkut ak wala surtout yow mii nga xam ne sax da nga daan fekkee jotaay yow koy waroon na cee bàyyil am mbaxana ma fekke naa jotaay bi de hmm. sëñ Touba fekke naa billaay bu ñu doful woon kay ñu dindi ci mbax nay benn gis nga keroog bi mu nelawe keroog bi sa maam nelawee Mbàkke mu ne mu dem fekk sëñ Basiru fekk sëñ Moustapha ñëw na mu ngi jugee fee fi muy doon dem. Mhm. ñu ne maam Kumba ne la mu ne nañ ma yur sama mooy kari gumba. Mhm. Kumba Daaru Salaam mooy kari gumba kari gumba moo jur sëñ Moustapha ba kii sëñ Basiru mhm. maama ma. léegi sa bi mu wàccee liggéey kan moo ko taxaw jullee ko denc ko. sëñ sëñ Takka. waaw eh. ah, sëñ Muntaxa. Ah, fan lañ ko denc sa tuuba ah, Touba. barabam xam nga ko yaa boo demee Touba di nga ko. barab ba léeg-léeg ba nii ak ñooy dem man nag dama mënatul dara. wallaay wallaay ñeenti at tey jóguma fii wóor na kii. Ah, dem moom fenn. yan kàddu ngay tëjee nuyoo ak ak siyaare mbokk taalibe yi lay kii. naa mbokk yëpp maa ngi leen di sant. Hmm. maa fii mënatuma dara waaye sama kel ci ñoom rek la ne. keroog damaa nekkal gone yi. Hmm. ñu dem bayal ma loolee bale ko. bale ko bi mu seen ma ne mënatuma waaye baleel. Hmm. su ma la amee léeg-léeg suba cuy ji mën a dog dog siyaare ma dox ba foofu si yaare waaye Cheikh Dia moo ko indi fii moo laaj fu mu doon mu wax ko mm-hmm. moo ko indi fi di Cheikh Dia mii ci tii alhamdulilah kon de xanaa soxna Altine da ñuy ñaanal rek ci barkeb sa maam soxna Kumba Daaru Salaam nga ñaanal ñu gudd fan ak wér ak xéewal ñu liggéeyale sëñ Touba. yàlla na ngeen am li mu am. amiin ya barke sëñ Touba. man mi mm-hmm. mm. fàttaliku naa fii de. Mm-hmm. li am fii. kii wóor na ko. li am fii. xam naa lu ma manqué juróom-ñetti fukki at yi bariwul. kon kay nañ tàllal suñu loxo rek nga ñaan bu ko defee ñu tëjee ko waxtaan wi. ah waaw ci barkeb sama am soxna Kumba Daaru Salaam. Kumba Daaru Salaam ak sëñ Basiru Mbàkke. amiin yaa barke borom Tuuba buntu fan a def. Tuuba. ngeen am jàmm. barke ba sëñ Bal na ko fi yàgg yàlla yàggaat barke sëñ Tuuba. amiin amiin amiin. walaay dégg na xamul kër gi rek. amin amin daf leen rek amin barke Soxna Kumba Daaru Salaam amin amin amin amin amin amin salaatul lazi fi kulli sayrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة في كل سهر وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر